mu yu bëri moom nga àndal mais tey euh, togg bi Alphie ce sera sous le patronage de docteur Cheikh Kanté Pape Cheikh. Aïcha demal aywa waaw Pape Cheikh xam nga ni bu ñeneen ñi tànnee ñeneen ñi rek ñun ñu tànn ki nga xamante ni mooy docteur Cheikh Kanté donc tey lépp lu ñu fi togg Pape lépp lu ñuy dégusté moo ko moom donc ci suba wax nañ ko très rapidement lay nekk mu nekk benn zebra cake xam nga soo déggee zebra cake nag xam ni zèbre mi ngi ci biir donc mu nekk cake boo xam ne ñaari couleur lay am couleur yi zèbre di am mais duñ ko def euh, sans beurre sofia les margarines nga xamante ni ñoom la ñooy euh, ñuy accompagner moment bi nga xamante ni moom la fii la leen di toll muy c'est les produits enrichis en vitamine A E ba noppi c'est enrichi en produits laitiers ba noppi c'est riche en vitamine A et E margarine Sofia yi nag xam nga soo nee keek xam ne ñoom ñoo ci baax ba tax na euh, jël nañu ci suba seyal lu toll ci 50 grammes euh, ci bër bi euh, daal di koy réserver donc nga jël nag li nga xamante ni mooy suukar lu toll ci 100 grammes daal di jël ñaari nen boo ko jëlee jaxase ko. daal di jël nag li nga xamante ni muy sukkar bi ak nen bi mélangé ko def sa sucre vanille daal di def sa essence vanille comme rek procédé cake bi ñuy defar bu ko defee nag nga daal di euh, ko ci jël li nga xamante ni mooy 150 grammes def ci biir euh, jël levure moitié sachet def ci biir mélangé ko daal ba nga xamante ni da am masse boobu nga xamante ni moom la cake di am soo paree nag mélange bi ñaar lay nekk da ngay jël li nga xamante ni mooy cacao amer daal di koy def ci première mélange bi nga xam ne day marron day chocolat beneen bi nag nga bàyyi ko nature noonu daal di jël nag muul bi nga xamante ne moom ngay am xam nga nag soo jëlee muul bi daal di jël sa ñaari kuddu boo jëlee benn kuddu euh, mélange bu weex def ko ci digg bi jël beneen kuddu mélange bu marron def ko ci digg bi ainsi de suite boo jëlee benn bu marron def jël benn bu weex def nga gis nga gis ni maanaam keek bi dafay pousse su poussé nga mën a remplir li nga xamante ni mooy sa moule daal di koy enfourner nag xam nga enfourner bi dina jël 30 euh, jàpp 40 minutes moo tax jotoon nañ ko defar ba pare parce que dafa am beneen étape boo xamante ni moom mooy des ci keek bi donc su keek bi paree nag ñu daal di koy jël papp euh, xar ko maanaam ñu ko xaree day am ñaari ñaari étage maanaam benn bi moom la ñu jël euh, sànq daal di koy euh, dagg bàyyi ko ci frigidaire bi parce que dañu soxla mu sedd lii ñuy gis ni nag mooy crème fouettée crème fouettée boo xam ne dama ko monté daal ciy def tuuti colorant bu orange donc moom la ñuy jël nappe ko ci cake bi pour mën a andi effet surprise boobu nga xamante ne suñu daggee suñu zebra cake moom la ñuy jox crème mascarpone mu nekk benn fromage boo xamante ne Euh, fromage Italie Italie Italie la jóge donc mu nekk fromage yoo xam ne dafay compact pour mën a andi texture yi nga xamante ne moom la yenn yi di am moom laay jël def ko ci li nga xamante ne mooy mooy crème feuilletée bi ma mélangé crème feuilletée bi nag koy mélangé da nga def sucre glace lu toll ci 100 grammes sucre glace après nag ñu jël li nga xamante ne mooy mascarpone bi daal di koy mélangé ak euh, crème bi ba nga am texture bi nga xamante ne moom la ñu am ci salade yi léegi nag dañuy jël li nga xamante ne moom mooy cake bi euh, jël nag li nga xam ne moom mooy crème bi nappe ko si donc dañuy def ci biir daal di def ci biti euh, wër ko ba yëpp maanaam yëpp am donc dañuy def ci biir généreusement parce que dañuy jëw jël beneen kubéeru cake bi euh, daal di ko ciy def donc da ngay mel ni kuy monter sa gâteau anniversaire jusque différence bi mooy que cake bi bokkul dara ak li nga xamante ni mooy génoise yi ñuy faral di gis d'habitude ci euh, gato yi ñuy faral di defar muy gato anniversaire yi donc Pape damay jël li nga xamante ni moom mooy deuxième bi muy kubéer bi mi ngi nii ma dugal ci frigo bi donc day ñëw daal di tëj li nga xamante ne moom mooy cake bi gis nga soo gisee nag euh, yaa ngi koy gis nii mu nekk noir et blanc marron blanc gis nga comme ni ma la ko waxee léegi zebra cake dafay jël li nga xamante ne moom mooy couleur cake au lieu koy def nii dama koy dippi nii donc suñu paree nag daal di jël li nga xamante ne moom mooy euh, crème bi euh, wax nañ ko léegi crème mascarpone ak li nga xamante ne moo di crème fouettée muy crème boo xamante ne day nekk soit crème chantilly wala crème boo xam ne yow yaa koy monter sa bopp donc dama ko siy nappee généreusement pap suñu paree ma daal di jël nag li nga xamante ni mooy vermicelle au chocolat nga xamante ne dafa nekk ay euh, effet décoratif daal di ko ciy def ba mu rafet monté ko nga may ma temps ma jël ko décoré ko ba mu nice laataa ma koy wàcceel ki nga xamante ne mooy sama chéri ko ko Lamine Samba di la wax ne El Hadj Samba yónnee na bataaxal mi ngi seetaan nee na en direct di la jox sa wàccuwaay ba mu mat sëkk donc pap kon bu ko defee laa wax nag bala maa dee man man li ma wax mooy yamal ci say mbokk ak say mag ak say xarit bàyyi maag El Samba d'accord waaw duggu nga ci dugg nga ci sama territoire nag. léegi man yow Samba. loolu laa la wax balaa may de bàyyi ma ak El Hadj rek. lu leer laa la wax Samba ak Lamine Samba yëpp laay boole Pape lii laa wax. yow ba nga ñëw. bala ma ñëw yow ba nga ñëw. <laughs>